Adja tey dañoo indi euh, ñaar ñoo xam ne li leen dal internet bi rek laa gis ñu koy joobe peut-être tey wal fajiri am sens wane ko donte ni muy wane des fois euh, am na ñu ma dégg sax benn waay bu ma dégg muy kilifa ci réew mi loolu laa ko jàppee donte ni kii laa dégg mu koy wooyee cere faal dégg naa ko ma wax ju doye di wax joo xam ni kilifa du waxee noonu bi ministre euh, premier ministre bi taxawee ci wetam mu ne am na télé ñu war a tëj te télé ñu war a tëj keroog ba ñu bëggee tëj président Macky Sall télé bi ko jàppale woon télé bi ko tijj moo ko fekk ba Fatick ak ay moto ak yu bare bari wax dëgg yàlla mampaate fu masaan masaane gis Ousmane Sonko gis ko ci wetam defe naa war nga koo xàmmee mooy ki daan sol lu weex la moom la mampaate mampaate dafa dugg prison dinañ leen wan vidéo bi sax incha moom ñaar la vidéo yi tey ñett la naan tey ñaar ele ah, nga am <laughs> ah. waa wala kon léegi xam nga nu may def dama koy tegale bu ñëwee ñu jàngandoo lépp. temps bi daal moom buy jot may dagg. léegi baal ma tegale kon Mame dañ koo jàpp ñu ko jàppee mu dugg ci prison bi ñu yàq place am mais gisaguma benn tele wane ko nag ba Antoine Diome man faa dem xam naa comme wal fajir dana ko wane Antoine Diome dana fa dem comme ni mu defoon la fois passée ñu ànd ak Modou ci premier élément bi ñu ngeen gis ki ñu yàq ay bagages am après ñu wan leen ko ñu dellu siwaat place ñuy toj di toj di ciblé ay place voilà loolu mooy place Mame Pathé mi nga xam ni tey mu ngi ci prison bi Antoine Diome nag bu ngeen gisee ma di ko tudd damaa dégg mu wax kàddu ga am solo keroog bi muy seeti borom Carrefour daf ni man ki may seeti xaw ma ndax fii la bokk ci ñun la bokk wala ci opposition bi la bokk mais dama gis ne doomu Sénégal bu yàqule la ma dem seeti ko ñu wan leen nag Mame Pathé bu ngeen xamul kan mooy Mame Pathé mooy ki nga xam ne foo gis Ousmane Sonko gis ko fa ak arrestation ko keroog ñu koy arrêté ñu siwaat voilà loolu mooy image yi ñu leen doon wan nga xam ne Mame Pathé euh, mosuñu ko gis mu yor xeer wala mu yor mart wala jaasi wala wala en tout cas daal mosul yéen yëkkati benn kàddu sax bu violent loolu daal ci ñi ko jàpp fekkoon mbir li mu doon wax mooy bàyyi leen Ousmane Sonko bàyyi leen ko ca nag lañ ko ngóofaanee moom ci boppam jàpp ko yàqule gii nag kenn ci victime yi koo xam ne yëkkati na kàddu wax pour ngeen ñu leen si waat ni ma ko yéegee daal man dama tukki woon bi ma ñëwee ñu ne ma gars yi ñëw nañ pour toj ma jógee sama kër ñëw fekk leen fi ñu ne dañuy toj man leen toj leen. loolu laa leen lu ma leen di wax leneen. non riposte daf koo jar. non man dañu ma wax ne ma danañ fi ñëw dañuy dindi oto yi nekk ci booru tali bi ma ne ah loolu loolu moom lu extraordinaire la ñu ñëw dindi oto yi ba pare ñëw ne waaw léegi place bi moo ci des ma ne ko place bi pour lan ñu ne dañ koy toj man leen lan moo tax ngeen koy toj. ñu ne ma amuñu lu ñu lay leeral man leen ah loolu nan la mën a nekkee ñu ne ma daal amuñu ñu leen man leen bisimilah kon toj leen. présence su préfet préfet moom nangu la wax ak man sax dama ko laaj ni ko lan la mi ngi fi woon le préfet de Dakar mu ne seen ne parle pas bon euh, ci wax sax juum na ba ni ma comme da ngeen a nekk ci guerre. waaw da ngeen nekk ci guerre. xaw ma ko. je ne sais pas laaj leen ko ko moom man nekkuma ci guerre parce que man taluma guerre. voilà lan moo tax mu xool la ne day nekk je ne sais pas je ne sais pas. je ne sais pas njortu ni non euh, non non njortuma dara. njortuma dara association bokkuma ci benn association man politique ma amuma parti nekkuma conseil municipal nekkuma dara man fii laa nekk ak samay doom di liggéey. je ne sais pas man xaritu ñëpp laa Sénégal yëpp seen xarit laa. amul kenn ku ma ci amal xaar yàlla mais ñu bari taxawoon nañ fi bëgg a riposter man leen non kenn riposter xale yi bari woon nañ fii xale yi bari woon nañ fii ma ni leen bu kenn riposter bàyyi leen leen ñu def seen liggéey dañuy yàq nañu yàq te je pense que Sénégal tollul fu ñuy yàqe fu ñuy defar la toll surtout ci weeru koor bi fii ay xale rek ñoo fi liggéey. voilà mi ngi noonu kon Omar. Euh, ñii ñooy victim yi ki ci gën a métti nag mooy Mame mi nga xam ne ci ginnaawam lañ ko defee mais lu gën a am solo ci wax ji li waa ji wax mooy bi ñuy yàq ak njabootam ak xaritam ñëw nañ pour riposter mu ni bàyyi leen bu kenn riposter bàyyi leen ñu yàq li ñuy yàq su ma ko comparé ak Antoine bi ma gisee mu def ay tournéem nii ki ñuy dimbalee ki ñuy seeti maanaam soxlawuñu ñu xam ci ban parti la bokk ak fan la bokk. Hmm. tey nga gis ñii ñu yàqal ñuy ay doomi senegal ban jàngan la ci def. <laughs> xam ne Sénégal dafa toll ci benn niveau kii sooy bu. Hmm. mooy euh, tey rek sama xel dafa nekkoon ci invité ñi ànd ak maire bi bilaal Diatta. mais hmm. après dama ko bàyyi. Ah. parce que léegi rek maa ngi lii ñu ne responsable des jeunes arrêté nañ ko ak Kër Massar bu Pastef. Ah léegi da ngay ragal sax ñeewante nit teg ko fii pare ñu jàpp. maanaam da ngay woon nit. mais après woo bi lan la ko mën a jural ngay sóor ba mhm. di génnaat ci maanaam bu nee ba egg ci niveau bu toll noonu mhm. dem ba ab commerçant mhm. boo xam ne dana Pastef la bokk tey jii du xëyti place am du ko dénkaane man gis naa Kër Massar ñu mel noonu hmm? parce que dañuy bañ ñu fekk leen ci place ba jàpp leen xam na ki doon lii mais dem ba ñoom ñu am si psychose boobu ci seen xel jàpp ni ñoom da leen danoo njort ni est-ce que mun am sa am ñu Ousmane Sonko mooy njort nii dañoo ànd ak Ousmane Sonko parce que Marseille grand place la waxtaanukaay la loolu lépp ñu dem ba dénkaane place am gis naa ñu ñu loolu dal ñu dénkaane seen place dem seen yoon. Mhm. parce que jàpp nañ ni bu leen fa fekkee mën na leen jàpp. si loolu dafa tiis. léegi nag tey jii fi ñu yóbbu mampaate bi loolu moom warul a bett. Hmm. ah mais dugal ko d'accord amul problème mais yàq après ci ginnaawam. non du loolu loolu du dara ci gars yi ak lan lañ ci jublu ak lu waral ñu def ko ji nga daf ci am ñaar yoo xam ne. wala ñett bu ko nit eggee ak yow leneen lu mu la defati tuuti na ci moom. ki la dugal kaso. kooku moom leneen lu mu def sa ginnaaw bu mu la bett parce que kaso war ñu fa dugal nit rek ci lu oyof oyof. mais aussi ki la jiñ agum dëmb kooku yàq na sa àddina avi mais ki la xañ sa teranga moo tax kon li ñu yàq ci moom waxuma la yàqule mais damay faral di wax naan yàqule moo gën a yàqu. Mm-hmm. mais moom dañ ko yàq ba pare maanaam ginnaaw bu ñu ko dugalee kaso ci ginnaaw ñu koy yàqal. maanaam moom dafa boole ñaar yooyu. Mm-hmm. léegi nag lan moo ko fi jar laa xamul ba léegi ku bokk ci Pastef wala nga jege Ousmane Sonko wala nga mus a photo ak moom wala nga doon docteur bu koy faj xam ne kii ab palaat lay dafa yor ab jaayukaay. Mm-hmm. mais docteur yi koy faj sax muccatuñ ci ñu leen di topp ci yoon exemple doba docteur Babacar Niang ak waa Souma ñi ngi fi. Mm-hmm. dama dem ba ñëpp ñu ko jege ñoo xam ne tey jii ñu ngi ci lii dinga nga dama lay jox tey benn exemple. am na ay booy yu ñu jàpp ñu ne danoo wax ci groupe whatsapp lii lii lii dafa am ay pièges yoo xam ne il faut que booy di ci teey mm-hmm. mooy dañuy bokk groupe whatsapp bi am ku ñu infiltré moom bu ñëwee day saagu Ousmane Sonko. waaw ah pour bëgg waa ji. waaw bu saagaa kay mu récupérer bi xam naa li nga wax sànni. xam bari na ci am na piège yu mel noonu kon naka booy yi ak seen group yi. Mm-hmm. di maytu. si waaw maanaam xam nga saaga Ousmane Sonko moom dara du la fekk. si mais yow booy fayu. Mm-hmm. yow sa fayu. li ñuy loolu dañu ne xamuñu ku tooñ mais ku fayu la ñu xam d'accord mais tey ji fi ñu yóbbu réew mi ci nii ba ci presse bi ñu ne ñii presse Ousmane Sonko la ñii presse Macky Sall mhm. docteurs yi nii médecins yi nii commerçants yi nii mais est-ce que Sénégal Abdoulaye Wade mi ngi fi woon ak Abdou Diouf mais egguñu woon ci niveau bi ba képp ku ànd ak Laye Wade ñu war a teg sa kaw fitna d'accord mais aussi tamit Macky Sall en 2008 2009 bari na ci ñoo xam ñu ngi woon ci ginnaawam mais du nii la Abdoulaye Wade daan def ak ñoom ak justice bi d'accord loolu tax tey dama xëy ma ni Guy Marius Sagna waratul wax France dégage. Mhm. ah mais man justice français li ñu def dernièrement man dafa tax da nga naan est-ce que sax doonoon français gënu ko benn moment. ñu jël leen yóbbu ay xale garde à vue ay 400 ñu ñëw ñu ne ñi fare ci nguur gi bu leen ñu yàpp seen garde à vue yi ngeen di def doomu jàmbur danoo am droit génn kaas bàyyi xale yépp ñu ñibbiwaat justice français lan la gënee sunu justice tey jii bu dee mampaate nekkul ci yoon nan ko teg ci yoon. mais aussi teg ko nekkul ci yoon. Mhm. yóbbu nañ ko ci yoon mais ginnaawam lu mu waree dundee ak njabootam. d'accord ñu yàq loolu. xam nga loolu aussi tamit day dem ba indi ci nit ñi ci benn moment mooy radicalisation nit ki di nga boo ko sësee ba ci miir bi mun naa am bu dee ba amatul pexe rek day songe. d'accord te de bëgguma ñu egg ci niveau boobu. incha allah bu ci xajee rek ñu ñëwaat incha allah euh, suka euh, gis nga li xew ci ginnaaw Mampaate euh, yàq nañu alalam. Mhm. boo la jeeg wax di yàlla ni leen di nekk ci guerre Euh, waaw loolu sooy bu du wax. kilifa war naa waxee loolu non non. Mhm. ba pare ku ne sax am nga droit bëgg. Mhm. ku ne am nga droit am koo xam ne da nga ko bëgg da nga am ci moom cofeel. Mhm. Euh, donc moom Mame Pathé am na ci mu koo xam ne cofeel boo xam ne kenn xamul fan la parce que ci lu mu nekk ci lu Ousmane ko nekk rek. moom mi ngi ci. kon donc waruñu koo cibler. Mm-hmm. bu kenn defee dara ñu ciblé ko deful ni ma ne damay ñaan wax dëgg yàlla am na loo xam ne dafa metti daal ci biir xol mm-hmm. da koy gis muy metti nit ñi di ko wax muy metti ci sa biir xol te doo ci mën dara mm-hmm. bu fi est-ce président Macky Sall am na yu bari yoo xam ne mi ngi koy gis est que mi koy gis waaw est-ce que mi ngi gis yu bari parce que euh, son yi bu fekkee daf am na yu bari yoo xam ne mi ngi koy gis ndax dama déggoon ñu ne am na yu bari yoo xam moom da ciy teg coom-coom kon am na yu bari yoo xam war na cee mën a teg coom en tant que njiitu réew. gis nga am na ñoo xam dañ lay dañ lay wër dañ lay yàqal moom yi war na mën naa bañ a mel mën naa am moom mu am noo xam melu ko. Mhm. mais am na ñoo xam dañ koo wër pour bëgg lu ko neex moo tax ñuy def yenn yi. si nga wax bi. si am na ñoo xam dañoo baax bëgg bëgg loo xam ni. Mhm. soit dañoo bëgg torop lu Macky Sall lu ko neex loolu ba ñu koy defal yoo xam ni moom est-ce moom mu ngi yëg loolu. Mhm. lii kii nekku fi. jàpp nañ ko mu ngi prison ñu dem ci ginnaawam yàq ay affaire am luy loolu dafa metti buñ ko waxul ak bu buñ ko waxee dafa metti ci xol voilà metti na de mi ngi noonu jërëjëf euh, Souka Adja mm, Souka wax na ko jàpp nii rek dafa metti mais nga yàq alalam fa la teraa nga nekkoon mu metti lool mu mel ni nag sénégalais yu baree baree bari nag te euh, teniruñ kont ci loolu waaye am na lu mën a def nag ci ay xol waaw am na nu mën def ci ay xol man déjà maa ngi leen di ma masawu Euh, ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci prison yi son yi bu sa hmm. noon bi gën a bon tout le temps dama koy wax sax doo ko yéenee prison parce que nit boo ko xañee liberté am rek loolu doy na doy na punition hmm. donc mu ngi noonu euh, bu fekkee ni dañoo ñëw dindi hmm. man doon naa accepter ñu ne ñii kat fi nu def seeni liggéeyukaay yi voie publique la. wala amuñu droit occuper ko. Mhm. mais ñoo xamante ni si je comprends bien ñii ñu ngi koy occuper depuis boobu. yàgg na waaw dafa mel ni sa dégg naa ci ñuy wax bureau aussi xaw ma mhm. wóoruma nag mais dégg naa ñu naan ñoo dend bureau aussi ci la bokk xaw ma moo doon wax noonu. ko mhm. xàmmeet ma ko sax. mais daal li ma mën a wax mooy bu fekkoon ni ci loolu la ñu nekkul ci yoon. man ñu teggi ay bagage te bañ yàq te nii ma gisee ñu jug nii dafa mel dañu yàq bagage jàmm donc muy loo xamante ni nit ki li ma waxoon rek nit ki mhm. xamoon nu mu def ba démarrer business am xamoon nu mu def ba am li mu am as si mu am di taaba taaba pour njabootam ak yeneen ñoo xamante ni mën nañu nekk ay chef de famille ay soutien de famille yoo mhm. xamante ni dañuy wut lu nu am yóbbul seeni njaboot mhm. gis nga euh, xeex d'accord mais xeex loyalement man man loolu laa gëm xeex sainement man damaa bëgg ngay xeex nga ñu tooñ la nga tooñ mais xee xeexal avec des armes conventionnelles. d'accord loolu laa gëm. macha allah am na solo alaaji noo jàngee eh, ñetti image yi nga gis ak jàpp mampaate gi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn mësu koo gis mu yoru xeer sax ba ab eh, kii luy gaañe. waaw d'abord eh, li njëkk mooy di leen massaw ci li nga xamante ni gis nañ ko. Hmm. nga wax benn wax bu am solo sànq. Hmm. ñu ne ministre de l'intérieur dane woon. Hmm. jafe-jafe bi kii am. moom amu ci kii lii la kii la waaye dafa gis ne ndaw luy liggéey la mhm. ñu yàqal ko mhm. donc loolu bokk ci li tax mu jóg sol dàllam daal dee dem mhm. euh, ñii am na loo xam ni expliqué lañu ko kenn ki mi ngi ci prison bi kii nga xamante ni kii moom ñëw na fekk na yëf yi ni mu demee ñuy toj wax na benn wax boo xamante ne bi nee na euh, préfet moo ko moo ko ci suuf daan ne da ngay ci guerre Hmm. yàlla buñ ne ci guerre mukk wallaay wallaay réew mi yàlla na nekk ci dal hmm. parce que guerre moom dafa nekk mbir mu doy waar xam nga Ousmane Sonko dafa nu mbir mi di gën a jege. Hmm. mbir yi di gën a tar c'est que loolu moom il faut que nit ñi xam ko parce que dafa am loo xam ni dafa am gis nga bu ñëwoon rek mu nooy kon dañ naan lu mu du dara eh, kële du dara maanaam bu fekkente ni dafa am loo bëgg a déjjati. Mhm. tey bi tamit xam nga ñoom euh, Patrick Lumumba ñuy wax ay euh, kii nga xamante ni bii ay jamono ay révolutionnaire ay Thomas Sankara. Mhm. ñooñu demoon nañ ba nga xam ni jamono yooyu daanaka tubaab yi ñoom ñoo imprégné woon ci réew yi bëggoon a am noo xamante ni bi noonu la ñuy doxalee ak ressources yi nga xamante ni moom la am. Mhm. maanaam bëgg fa teg seen ñooñ. maanaam bu nangu woon amul problème. mais dafa bañoon loolu léegi nag imaginer tubaab bi def fi ginnaaw bi mu la coloniser tamit teg ay ñoo xamante ni bi ay vision la ñuy doxee pendant mm-hmm. des années nga bëgg a ñëw ne dangay ngay dajjati système mm-hmm. Mm-hmm. doxalin doxalin boobu ku gis ni en face de partie Pastef ñi ngi jàkkaarloog président rek mooy pour man comprendre dara ci li nga xam ni mooy mbir bi man jàpp naa ne am na tey ñu nekk ci opposition sax. Mhm. am gis-gis yi nga xam ne bii tey moom la nguur gi di doxalee. parce que système. Mhm. dañoo bokk ci système parce que bu leneen ñëwee du leen arranger. Mhm. donc nag moo tax tamit ñu wéet lool ci combat bi boo seetee combat bi ni nga xam ne noonu lañ ci wéetee. donte yaa ngi dégg ñuy wax ay manifestation yu ñuy loolu donc loolu booy ànd ak nit il faut ñu xaw a xupp tuuti wax yenn wax yi. waaye est-ce que lay jot ngir nga jëf wax lenn la jëf leneen la est-ce que lay jot ngir nga daal di am taxawaay pour wane ni mën a kii kat ñoo ànd ak benn taxawaay bi est-ce loolu tamit di nga ko gis ci li nga xam ne bii mooy mbir arrestation yi nga xamante ni bii moo am ni mhm. c'est pour euh, Omar a nga koy wax di léegi expliquer na ñoo xamante ni am nañ tiitaange sax pour ubbi seen place mhm. loolu mooy jubluwaay bi mhm. jubluwaay bi mooy fexe ba nit ñi dootuñ ñemee wax dootuñu ñemee di dootu dootuñu ñemee dara maanaam tiit mhm. maanaam nga tiital askan wi mhm. pour nag bu askan wi tiitee ndax la nga bëgg ngir nga mën ko def mhm. léegi yu mel noonu nag euh, boo seetee man damay wax ne damay gën a préféré adversaire bi nga xam ne jàkkaarloo naa moom di ko gis que ni ki nga xam ne gisatuma ko déggatuma ko parce que ki nga gisatu déggatoo ko te wóor la ne mi ngi fi kooku danger la li koy gën a kii rek imaginer rek tey nga ne yaa ngi rey benn mbóot mbóot bi rëcc <laughs> ci néeg bi mu wóor ni mbóot baa ngi ci néeg bi te mbóot bi day xamoo fu mu nekk waa dëgg la yow maanaam boo fa fanaanee sax doo nelaw mm-hmm. yaa ngi dégg donte yaa ko ëpp doole mais maanaam doo nelaw parce que da nga lu yëngooti nga ne ma nga loolu rek euh, problème la léegi nag fi mu toll nii man dama jàpp ni euh, buñ demee ba nga xam ni xam nga léegi Omar a ngi nii di joxe ay kii ci euh, groupe WhatsApp yi mm-hmm. bu ñemee ba booy off black out. Mhm. waxatuñu whatsapp. Mhm. waxatuñu kii ala kulli àll danañ créer yeneen façon yu ñuy waxee te loolu yow yaay yóbbu sa askan ci beneen xereñ ceef mhm. goo xamante ni gi parce que nit ki boo ko tëjalee lii rek mu ubbi leneen li muy ubbi nag lan la. yow peut-être yow mën na ubbi loo xamante ni bii xalaatoo ni mën na fa li nga xam yëpp tëj nga ko mais. communication bi buy jaar feneen musiba lay doon moom laa la doon wax parfois ne la bu ñu tëjee ne euh, Pape ale journaliste la bu mu fi wax Pape Ndiaye journaliste la bu mu fi wax ñu fexe ba ñenn ñi nga xamante ni bi journaliste la yoo xam ne bu ñu jotee xibaar xam nañ ni ñu koy joxee xibaar yi léegi day dem ci liveur yi ñoo xam ni fële la ñuy ne bitim réew hmm. du ñu ko segg di wax lu lu leen neexee hmm. li nga xam ni mooy mbir mi amatut segg léegi nag bu boobaa. Hmm. ñooñu sax mën nañu utiliser sax ba ci yokk loo xam ne dañuy manipuler te xamuñu ni. Ah. ñu ngi manipuler ay nit. <laughs> waaw te loolu boobaa musiba doon. bëgg dëgg donc nag fi mu toll nag foofu la système bi jëm. Hmm. maanaam li nga xam ne moom la nit ñi xam mu ne bu fi kenn waxati nit ñi ne nañ noppi mais nit ñi bu ñu noppee daañu déewante. Hmm. yaa ngi dégg boo nee xale yi bu leen wax imaginer rek boo nee xale yi bu xay xole lu bari toogee sa kër. ne ña ngay nii balance maa ngay fàttaliku. ñu ne ñu ngi nii balance Euh, ñu ne benn waay ñu dem seen kër pour ñu niblance ñu daal di dem toog di niblance ñuy waxtaan jékki jekki mu ne sama papa bëggut wax ju bari ñuy mujj gi ñuy déewante naa ne <laughs> di wax ndaat mu ne sama papa day bañ ma ne ko damaa jéngu quand même <laughs> ma ne ko nag bu ñu sonal yow yaa ñu wax ñu ñëw sa kër niblance fi donc nag nga bëgg ñoo fatt encore donc dañuy waxtaan parce que tamit niblance bu ñu demee ba mujj gi nag waxatuñu ban sens la niblance am. léegi nag fi mu toll nii coow li. Mhm. dafay dem ci nit ki bu soxlaa nit. wala ñu am seeni xibaar yi ñuy joxe ñu jaarale ko ci yeneen i pexe yoo xam ni. Mhm. kenn dootut yëg. maar day taal yi mën ngaa xëy rek. Mhm. dara xew nga naan lii kañ la kañ lañ ko togg kañ la yëf yi lii kañ la yëf yi laa te fekk ne bañ koy togg yow yaa. créer loo xamante ni bi tax nga yëgatoo dara. d'accord donc il faut que ñu éviter dafa am dafa koy dëgg dafa am lu ma koy dëgg la rek nga Mali. waaw ah. gi neex loolu. ñu dem ba Mali mel na amatul opposition benn dof jóge fee Amadou Yaya Sanogo jël réew ma xamul lu mu cay def ba tey jii Mali mi ngi ci fitna. est maanaam dañ ko xañ ñëpp ab dof ñëw jël ko. Euh, ndeysaan pour dëggalal saa li mu doon wax sama benn jigéen du ma tudd turam nag mais daf ñuy seetaan benn jour dafa am lu xewoon mooy premier jàpp Ousmane Sonko mu ne ma lii li ko dal dafa metti man bëgg na maa wax mais sama jëkkër kilifa la ci dëkk bi soo waxee ñu bu ndaxatal ko pour dëgg rek li ngay wax ni des fois nit jabaram li waa jox na Ousmane Sonko day sàcc xolu jabar luy gën a garaaw lay def muy sàcc xolu jabar nit <laughs> nee na nee na kër goo dem borom kër ga dinañ tudd turu Ousmane Sonko ci kër gi lu bari te du tudd borom kër <laughs> nee na Ousmane Sonko kay mooy yooyu gars yi bañ ko parce que day sàcc xol. am na benn laay wër bu jigéen. Euh. li muy yàq. pré euh, njabootu président ak bopp ci te lu te <coughs> kenn mësu koo kenn est-ce que kooku mën nañu ko jàpp. déedéet kooku li mu leen di yàq li mu leen di wax. Mm-hmm. man damay seetaan ba ci yàgg man dama naa kii bu nekkoon Sénégal kii kii ko bu yàgg. parce que li muy wax da xam ni kii. mais na ci loo xam ne sax sukaa kooku man dama gëm ni ñooñu sax dañuy yàqal Ousmane Sonko. waaw ñooñu moom waaw xam nga di di xeexal Ousmane Sonko di saaga ay way juru jàmbur. waaw loolu amul saaga daal ñooñu kooku li muy moom la ñu àndal carrément moom la àndal parce que li muy wax <coughs> non mën nañu bañ a àndal moom c'est que tey man mën naa wax ne maa ngi ànd ak diw ñëw béti di saaga di wax wax ju ñaaw joo xamante ni peut-être maa ngi ànd ak Omar mais bëgg nit ñi jugé waa kër bi ti niñ mel hmm. loolu mën na ne dafa am yu bari yoo xamante ni bi mën na ne en tout cas li am solo mooy ndax ñi nga xamante ni bi tey ñoom tekk nañ lu bari ci seen parti yi nga mhm. xamante ni bi kii nañ est-ce que gis nga leen ñu amee yenn discours yi loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li ne mais en tout cas réew bi moom fi mu toll nii maanaam li ñuy wax ne muus sax doo ko tàq bu mu sës ci miir bi mhm. waaw boo tëjee boo yore fii bunt sukaa mii bu duggee fii ci néegam fekk fa muus ubbi bunt ba mën na koo duma muus ma daw waaye bés boo tëjee bunt bi jàkkaarloo muus muus mi jàkkaarloo yow d'accord te bu boobaa nag lépp nag yawa d'accord waaw ni nga sànq bi may dugg dama koy wax sukaa sama xol xawoon na ci jeex mooy di nga bi ñu demee ba egg ci niveau sony bu mhm. maanaam xameetunu ku def ak ku deful maanaam ci biir jàpp bi di nga jàpp ba jàpp koo xam ne mun naa am sax moom bokku ci mhm. mais mbooloo la rek léegi ma ma ni mhm. ñaanu ku ñaanu kun tooñ suñu borom mun na ko nangu am ñoo xam ñu xeex mu mënuñu xuloo mais mën nañu ñaan kaso ba nga leen téye seen allahuma rek mun na impacté wu ci lu bari. si te langum noonu du tuuti ji nga boo jàppee. benn nit non Mampate mi dafa dafa moom kenn musu ko dégg sax mu wax. xam lu dangereux hmm. mooy jàppee. bi nga boo jàppee quatre cent jeunes. Hmm. mooy ñàkk nga quatre cent yoo xam ne tey jii mënutoo leen am parce que nag fii koo fi jàpp ay mbokkam jug ku ka maanaam koo fi jàpp ay mbokk quatre mille quatre mille maanaam. koo gis rek bu doon day dundal njaboot rek diis a ngi ci ginnaawam ak ay xaritam ak i soppeem. li ñuy xañ président Macky Sall jàpp ñu ngi koy defaral man man des fois dama naan ñii dañuy defaral Macky Sall mais est-ce que comprendre ni. li mu ciy ñàkk mu ëpp li mu ciy amee. damay déglu euh, jibi jibi kii mooy sociologue jibi. kii jibi jaxate mhm. muy nekk li benn kii nee na am na benn général boo xamante ni bu musaana jël dëkk maanaam bu gañee dëkk bi ba dëkk bi ba mu leer ko ni occupé na ko day ubbi benn porox ndollu Euh, pour ñi nga xamante ni bii am na ñoo xam ne fa la ñuy jaar daw ñu ne ko lu tax ñii ñëpp doo leen rey mu ne non am na ñoo xamante ni bii boo xasee ba jël dëkk bi soxla wut ngay kii ñëpp parce que gis nga ñooñu bu ñuy xeex. Mm-hmm. nee na xeex la boo bu ñu demee bay xeex maanaam seen bakkan la ñuy pare dañuy pare maanaam mën nañu gën a ëpp motivation sax kii mais nag boo yee bunt boo xamante ni bii ci la ñuy jaar pour nga xam ni mën nañoo rëcc. Mm-hmm. léegi laa dañ fay jaar rëcc. Mhm. maanaam duñ la song si. moo tax na saa yi am na foo xam ne boo fa yeggee am na yoo xamante ni bii jaru ko il faut que nga ubbi ay bunt bunt yooyu nag li ñu mën a ubbi mooy ay buntu waxtaan. Mhm. man pour man buntu yoo xamante ni ay négociation ñu waxtaan. xool nu ñuy def pour préserver li nga xam ni mooy réew mi nga xamante ni bii du tàkk. Mhm. réew mi dinañ ko mën a joxe ci jàmm ak salaam. mais am na yoo xamante ni bii bu continuer. d'accord yi ñun ñëpp Mm-hmm. mais situation bi yóbbu na leen Pastef. Mm-hmm. maanaam li ñuy li ñuy teg parti wax waxuma la sax jëmi Ousmane Sonko mais parti bi ak boo yu ñuy teg da leen ni révolté ba ñu jël seen xol di ko jox Pastef. Mm-hmm. loolu dama ni ñuy dóor ci Pastef bu ñu jàppee ne Macky Sall la defaral man la gëwuma ni moom la defaral. pour être honnête. parce que am na ñoo xam dañuy révolté te sénégalais dafa xaw a bëri yërmande te sénégalais des fois du bëgg ki ñuy bundu xataal dëgg dëgg bu yàggee taxawaay boobu ñu am. beneen bu si jàpp xale yi ñi leen yàqal est ce que ñu ngi sóor ni bis dina ñëw ñu faatu ñoom ñëpp ñu teg leen ci ab jàg war leen suul ñu toll ci sukuraat suñu borom di leen fàttali ñoom seen jëf ci kaw suuf est-ce que xam nga li ngeen di def yëpp yeneen koy def bis dina ñëw ngeen faatu bis dina ñëw suñu borom ñu taxaw suñu borom taxaw li ngeen doon def fan leen ko teg mooy la justice divine dina am lu justice bi du justice benn justice mu am mooy justice suñu borom na nga ko sóoraale ñi di jël dogal yi waaw d'accord kon mi ngi noonu mampaate ak fa mu nekk eh, ñu ngi siy fàttaliwaale sax eh, Papa Ndiaye eh, moom tamit ca Sébikotane ak mboolem ñi ci prison yi ci Sénégal yëpp di wax kàddu gi Omar wax rek président Sall hmm? papa falaa ko fa la mujjoon falaa ko mu joon de Pape Ndiaye peut-être xëy na mën na am ñu toxal ko mais maa nga fa woon ñi ko seeti fa lañ ko doon seetee kon mi ngi noon Pape Pape Ndiaye ak ñi fa nekk ñëpp ñu ngi leen di nuyu di ñaan yàlla jàmm ci réew mi waaw jàmm gën jama waaw yàlla na yàlla def jàmm ba talaata ak jàmm. waaw incha allah rabbi euh, alxames. la lan tey laa tegoon jeudi. Ah, aywa xalaat lu la dal sooy lu la dal jeudi dëgg soo leen dal yàgg saa. ba ba ba waaw ba talaata ak jàmm nee tey dafa jeudi la ko tegoon. <laughs> tey la talaata de. <laughs> tey la talaata de. non non non. ah safagul nag. safagul. Ah. damaa ragal koor ma. da ngaa ragal koor moo tax yaa ngi mer. ayca mi ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax en ñu ngi ñaanal képp koo xamante ni yoon teg na la loxo yàlla na yàlla suñu borom génne Pape Ndiaye moom nga xamante ni suñu frère la suñu xarit la moom it yàlla na ko yàlla génne waat mu dellu ci njabootam moog ñi mu fa nekkal ah, foofu yëpp ndaxte nag li ma wax rek wax wax boobu dama koy wax sa noon bi gën a nekk sa noon sax doo ko yéenee kaso ndax kaso moom mooy loolu metti na lool ñu ngi leen di remercier yéen ñu nu bokkaloon plateau bi remercier également ñu nekkoon ci régie ba Alaaji Modou Diouf Abdou Top Abdou Top ñu ngi koy bi fa mu ne ñoom Fallou ak Ablaye Diallo ñu ngi leen di jaajëfal man ma jox leen rendez-vous jeudi Souka Mbaye teew fi suba incha allahu rabbi KPI moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show